may ñaan sénégalais yi. Euh, ñu ñu arrêté ko xam nga lu tax ñun dañoo nam nam ma am problème dañoo dañuy nar a am problème ak FIFA FIFA mi moom VAR. parce que waa FIFA dinañ dem ba remarqué ne ñoom ñi moom VAR li ñu jëfandikoo VAR waa Sénégal ci deux mois ñoo leen ko ëppale te FIFA du nangu loolu te bu yàggee VAR bi mën na bloqué mën na planqué. am na nag yaa deux mois liñ fi VAR. FIFA mi moom VAR. ba football de football léegi xaw ma à la VAR xaw ma ko waxee. non bi man damay ñaan ñu bakko. balaa FIFA am na ñu naan sax arbitre bi dem léegi mu tooy. non non non non arbitre non <laughs> bi fi toll nii demagul de boo ci gis rek montage la nekkatul arbitre arbitre bàyyi na bu yàgg découragé na moom bàyyi na léegi nag FIFA laay bañ xam nga réew néew di doole lañ bor yi dèjà gën nañoo sëqatal lebati dañ eurobond FIFA ñëw teg ñu ay daanaki amaan ñu gën a waaye di balaa loolu lépp kii jaru ko parce que kii li ñu ko vaar ci àdduna te yëgul ne ñu ngi koy vaar ba jàpp ne moom kenn mënu koo vaar xam nga loolu rek vaar la xam nga naan kenn mënumaa vaar loolu vaar la moom ci moom daf ko métti moo tax mu ne man kenn mënuma vaar déedéet dafa jàpp ne kenn vaaru ko est moom pour moom ba léegi muy wax dëgg voilà léegi nag nit ku mel noonu mhm. boo ko toppee sa bopp ngay mujjee lor nañu bàyyi vaar yi dama leen ko ñaan te yàlla tax FIFA la ñuy amal problème daf ñuy toppe FIFA daf ñuy pelent

ngeen bëgg a demati vaar yéen mu balaa caa ngeen ba ko billaay bàyyi leen ko te yàlla tax bu ngeen ko bàyyiwul seen bopp yéenee am problème rek